aoudu billahi min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalube yi ñu ngi nuyu ñëpp tey siyaare ñëpp tàmbaleen yóbbeeg siyaare bi ci saaxibul fadila alcheikh mohamadul muntaqa xafidahu llahu wa raa wa waffaqahu wa tawalla di nuyu njabootug sëriñ tubaa gépp waaye di beral am nuyoo ko siyaar alcheikh abdou samad mbàkke ibnu cheikh Souhaïbou mi nga xam ne ci ay xalaatam ak yéeneem la li taxawe ba tey ñu tàmbalee bàqara isib ju ne ñu indi la cay ay boole ba tey la sunu fanweeri isib ñaar jàpp ñett di nuyu asamadee gépp nag ñu koy teewlu su bokki sëriñ daara yi ndax émission bi daaraa ko tax a jóg boolee alxuraan ab dongaa koy moom wala sëñ daara waaye keneen di ñetteel mooy kam saf ittee itteewoo ko ba jël temps di ko ca def kon atub mawridu zamaan fi ulumil seen mbokk seen xarit Mokhtar Kébé Cheikh Saliou ñëwaat na ci boole yi nga xam ne diggoon na leen ko tam amoon ak taxaw dañ fas yéene koo yeggale ñu ngi woon ci soratu Taaha nag danga fa gis wa yasaluunaka ñu ne loo naka yóbbu waaw njeego wa yasaluunaka yóbbu waaw njeego anil yataame anil maxiid maasaa yunfiquuna yépp nga laam xanil ruuxee nga lisra antil qarnay ne nga njenge anil jibaale nga tahi mooy njeego njeego nag mooy juróom benn am rii yóbbu yërut juróom yaar naayoo taxi muy ñeent yépp nga taxi jenn nam li yaar njenge illaa man na yaar la taxeeg naba i illaa li man a ba job saba in fa xasaf naa xasas man xasaf naa anka tongoo kub jorngel muy ak xaalonk la ak siin su waaw yaar fa xadaf naa tëhi ànd war na moroom ja fa xasaf naa googu laañ la te boo koy jàng xasaf naa rek ngay jàng mu ne fa xasaf naa xasas man xasaf naa anka tongoo kub jorngel yaar fa xadaf naa tahi ànd war na moroom ja muy gii dafa ànd ak ñoom ba noppi wuuteeg ñoom ndax moom ak laañ la laañ mooy lan del ju tooy farraqta tahi fa ida faragta sharhi xaaf tahi nganji sharhi sidda tahi jam-jam sharhi muy farraqta ja ca tëhi daa sidda waaye nag farraqta ja ca sarxi dafa jam-jam jam-jam mooy amutuk sadda sar combañ naayo amimi i ala athari tëhi min athari yaar tëhi fatxi ila athari rahmati caatum róom aztu laañ yet fa nabadtuha tahi inni xustu yaar xafraan ak doxaan tongoog tooy sàppo wa xasharnaa lanaam wa xasharnaahum njenge lima xasartaniya tahi wa xushira namli wa ida xushira lanqaaf dalika xasrun majid li awalil xasri ca xasri fa xashara ca naasiaat xusirat ca takwiir xaashirina kulluhum heelaayo njeego nunu mumu toya annuha yaar yépp nga tahi muntaha yaar yépp nga nañ mi talaha abas yanha alaqi jorngelub ndaanaan njeego wa i fama laqu wa israafanaa gallaay israafan wa bidaaran jigéen falaa yusrif fil qatli lisra man asrafa tëhi lam yusrifu furqaan qul yaa ibaadiya alladina asrafoo ca sumar jor nge lum ndaanaan njeego wastabir yett la mbóore yaar mareem ak tëhi laaya xamar xam naa mbokk yi ginnaaw dañuy doora tàmbali di nuyoo rek nañ la ci njëlbeenu iqtaraba linnaasi xisaabuhum te boo ko xoolee kon mooy fanweereelu isib ak ñaar di fanweeri émission ak ñaar ci tey seen mbokk seen xarit Mokhtar Kébé Cheikh Saliou Mbacké mu yemale foofu bàyyi dongay daara yi ñu jël xalima yi te àndak ak nun te teewlu ko comme niñ ko daan waxee rek bind bu tuuti te xam nga yaatoo gën bind bu bari te xam nga néew